Euh, salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam se ne moom lañ tuddee xam sa waay xam ngeen ci ànd ak Mame Fatou Kébé ma ci ànd ak yéen ngeen ngeen a a xam seen i euh, tey nag seen waay Serigne Ousmane Diouf lañ dalal Serigne Ousmane Diouf tamit moom it bokk ci euh, moom it tamit ngeen xam ko ci njàngam xasida mi waaye tamit laataa ñuy dugg si suñuy waxtaan tamit dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo ba pare nuyoo askan wi koy seetaan ñu soog a mën a dugg si suñuy waxtaan Serigne Ousmane ñu bàyyi la nga nuyoo aouzu mina sheytaani rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wasit baraayi euh, mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk ci turam ak ci santam euh, di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Muhammadul Muntaxa euh, di ñaan suñ boroom sunu kàddu fekk ko ci jàmm ñaan suñ borom may ko fan nu gudd ànd ak wér gu yaram siyaari sëriñ Galas Mbàkke moom sëriñ Murtadaam sëriñ Fàdilu mi sama wasila ak mbooleem jànkati xasida yëpp ak mbooleem soppe yëpp ak mbooleem jullit yëpp maa ngi leen di siyaare bu baax di ñaan ci daraje sëñ Touba suñu kàddu fekk leen ci jàmm di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy personnel bi liggéey fii ci site bi 24 at di ñaan yàlla defal leen jàmm caméraman yi ak euh, ñi yore preneur de son yeeg ñëpp maa ngi leen réalisateur rek ñëpp maa ngi leen di siyaar ak yow soxna Maam Faty yow mi présenté émission bi di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek wala luñ fi def lu mu mën a doon rek mu ànd ngërëmal yàlla ak yonent bi ak bëgguk Serigne Touba barkeb Xaadimu Rasuul jërëjëf sëñ Ousmane Diouf la ci nuyoo bu am solo boobee ngeen daal di koy déggee waaye sëñ Ousmane comme que jotaay bi moom it dañ koo tàmm ibbee am njàngum xas dañu daal di bëgg nga daal ba pare ñu soog a tàmbali نوير جناني صفي أماني وسد برائي سدد لساني نور جناني صفي أماني وسد برائي saxsaat dayra li xut mayra faltak fi jawra li mayrai an xis iyaali min adalaali wa bilalaali خلد سرائي خلي عتابا خذ الكتاب واقبل متابا يا سسرائي يا خير ربي وسلم على الختم وكل عازم بلا انتهاء jërëjëf sëñ Ousmane Diouf la woon ngeen dégg ko ci njàngum xasida mu am solo yi nga xam si ne moom la ubbee jataay bi sëñ Ousmane comme ñi nga xam si ne bëgg nañoo xam sañ Ousmane Diouf euh, boo ñu doon wax kan mooy sañ Ousmane Diouf. waaw xam naa sëñ Ousmane nag moom comme ni ko ñëpp xamee rek taalibe sëñ Touba ginnaaw bi mu doonee ab jullit bokk ci ay famille yu am solo ci réew mi yu baax euh, ñu jur ko ci xasida yi ak alxuraan jàngal ko yar ko tarbiya ko jaarale ko fi ñuy jaarale doomi jullit euh, tarxiya ko tamit fi ñuy jaarale ab murit euh, mu juddoo fii ci Touba Mbàkke gi fii ñuy wax Kër fi laa ganee jamono euh, ori sëñ Ousmane Diouf daal origine Touba la waa origine <laughs> origine Touba la. Ah, jërëjëf mu mel ne tamit kenn ku nekk am nga ay jaar-jaar laata ngay egsi ci njàng mi nga xam si ne ci lañ la xamee ndax mën nga ñëw dikkal tamit ci jaar-jaar yooyu. waaw sama jaar-jaar nag man man naa ne euh, mooy xasida yi mooy xasida yi ndax sama ñaari waajur. ñoom damaa judd rek fekk leen ci xasaayit yi eh, sama waajur wu góor ku ñuy wax sëñ Mut Sàmb la daan àndal ci xasida yi kooku yaakaar naa ñi ku fekkewul jamono itam dégg nañ ay jalooreem ci xasaayit yi bi nu gémmee dañuy fekk oto bi di gaare ci biir kër gi di yàpp jàngkat yi ak awkat yi ñuy dem tournée a ñëw ñu gimmi ci loolu eh, yàlla baaxinu itam sunu waajur wu góor tàggat ci sunu waajur wu jigéen ba yàlla dogal mu mën a jàng xasaayit yi comme nii ko nii ñu koy jàng ci baas yi nga xam ne sama waajur bu ma saa am programme bu war bu mu war a fanaane jàng sama waajur wu jigéen mooy jàng première heure bi ba trois heures waaw sama waajur wu jigéen da daan jàng waaw euh, bu ko defee bu jàngee ba trois heures trois heures et demi sama waajur wu góor dugg si àggale jàng yi Euh, daana ma faral di wax ne ma yow faw nga war a mën a jàng ndax dama daan jàng ci tànt ba jël yi bari nit ñi daanu ku ñuy wax sëriñ Cheikh Seck alal wasiri mook Ndari Seck mi nekkoon euh, rajo bi ci Mbàkke ñoom ñoo ñoo ñoo bokk lépp nee na ma moo la daan teggee ci sama ginnaaw génne la pour bañ ñu gaañ la kon man <laughs> ci loolu laa ci loolu mooy sama jaar-jaar d'accord nag def naa ay ay métier ndax soo dee doomi géwal euh, nekk fa taaw liñ baaxoo amal mooy boo gémmee tuuti rek li ñuy njëkk a lijjanti mooy ngay ngay fexe amee xaalis nooy defee ba am xaalis ndax nga mën a teel a noppal parent yeeg yi caaju moo waral demoon naa duggoon métier mu ñuy wax menuisier métallique liggéey naa ko 15 ans ba am ci certificat de travail troisième catégorie sama premier voyage France moom métier bi moo ma naroon a yóbbu waaye booba xëy na sëñ bi lii rek la ma def loo mooy jàng xasaayit moo waraloon yi yi ko yàq lu tuuti la ndax semaine rek laa faroon defaat 2002 pour ma mën a dem France benn tubaab naroon maa jël foofu waaye li ko yàq rek mooy sama carte d'identité euh, dama dama ko defal 6 mois 200 biñ may defal certificat de travail nag ma wax ma wax année normale bi. mu am déclenche euh, déclare <laughs> deux deux ans waaw te loolu seetluwuñ ko ba kayit yi dem ci tubaab bi te tubaab bi ñoom xamuñu wax yu kiiwul daal waa ñaari wax waa loolu moo kii waaye xam naa booba lii la sëñ bi na moon daal waaw yii daal mooy daal mooy sama jaar-jaar wax dëgg yàlla waaw. waaw sëñ Ousmane tamit ndax mën nañoo xam tamit ci ci ban année nga daal di dugg ci njàng mi. xam nga ñi nga xam ne seen waajur dafa nekk virginisateur bu nu juddoo ci kër gi dañu gis xotti pono yu yàqu yeeg sàmbariyeer yeeg yooyu bu seen papay dem ci place bi nga jàpp seen loxo di di leen yóbbaale ñuy jéem a fexe fàtt ay bën bën ak ay kol ay sàmbariyeer ak ay nangam nangam kon yooyu soo demee ba gimmi say at ñëw mënoo xam exact kañ nga dugg ci affaire parce que ci nga gimmee waaw voilà waaw waaw mais li ma la mën a wax mooy man sama sama sama yaay moo ma wax ne ma bi ngay jàng wax bayitu alal wasiiri nga jàng wax ak eeru taxmis bi mu sàmb daan jàng boobu nga jàng wax ak turu sëñ Mbàkke Soxna Lo na ma ñett yi laa daan gis moom nga daan jàng wax di ko foowantu ba kii sama sama ngénte tam aussi man biñ may ngénte bàyyi daraame yàlla na yàlla dolli ay leeram heure bi daaw bi mu faatoo ak léegi euh, at mi ñetti fan la teg yaakaar naa su ma juumul bërkaat dem moo nekkoon anniversaire am may profité di ko ñaanal yàlla dolli ay xéewal ci moom li fekk jant baa ngi fenk ak loolu moo moo tax daanaka man mënumaa xam exact man daal damaa gémmi rek dugg ci biir njàng mi waaw xam naa ne daal soo ma laajee xëy na ay année yi ma jëkk fanaane fanaanee jàng ak yooyu moom mën naa ko xam ndax loolu moom fàttewuma ko tey tamit eh, ndax mën nañoo xam comme que sa waajur da daan eh, def ay jàng nga tàmbalee ko ci ñoom ndax ci ñoom ñooñu rek ci nga yam wala jot ngaa am yeneen jàngkat yoo xam ne jot nga faa jaar ngir aw leen. sama sama papa nag moo ma waxoon ne ma Ousmane ma ne ko waa mun njàng mi mi ngi ci kër gi ma ne ko waa mun ma waaye gis nga làmb ji ma ne ko waa ma bu bu bu sa waay doonee mbër eh, ñuy defar groupement ci kër gi yëpp di dem làmb jee yëpp ba ba kër gi saf làmb mën ne ko waa mun ma du la tax a mën a bëri. mën ne ko amun ah, ma boo bëggee mën a bëree ma ne ko amun ah, ma da ngay dem dugg ci école de lutte jàng bëre yiñ ciy def yëpp ba man ko boo paree nga dem koolu branteeg sëriñ si nga xam ne mën na noo ñaan piir nga wut gàllaaj ba ko après nga dem defi boxe ba mën a xeex lool doo ko dugg ci làmb ji ma ne ko waaw ah, mu ne ma kon nag mën ne ko amun ma maay sa bàyyi yóbbu naa la ci jàng fu nekk mën ne ko amun ma waaye loolu doy util koo àndal ci xasaay di di ko awu te yàlla rek tax su la gërëmee boo lëgee nga am cër kenn du ko mën a faj ma daal di jóg booba nag fekk na buñ ma booba jamono xam nga Touba booba bariwul ay jànkat yu ndaw booba Xaadim Géey rek moo fi ne moom la ñëpp xam moo fi nekk wilaya génn fi ñun tam ñu nekk ndong moom wilaya parce que man wilaya Nasru laa nekkoon Touba Taïf man maa fa doon leader bi nekkoon fa jànkat mag bi Xaadim bu ma saa jógee këram foofu lay ñëw léegi léeg di ñu fa fekk man ci laa ko xamee. ak itam seexale yi ñu daan def léeg-léegi lu mat treize daayira wala quinze dajee ci benn gox ñu seexale jàngkat bu nekk jàng ñoo xamante ci laa xamante ak sëñ Xaadim Gueye sëñ Bàcc Jóob nangam nangam alors léegi ñuy dox loolu ma ma ma di ca topp di ànd ak ñoom léegi léegi ma ma ma ñu dajee man ak sëñ Mara Seck léegi léegi sëñ Malick Sall léegi léegi sëñ ba yàgg nag virusu sëñ Xaadim gi dugg ma daal ma ne kii daal lay àndali. booba ndeysaan amoon nañ benn daayira bu ñu daa wax mu xaadimatul ma fi garas daaru ay 87 jàpp 88 89 ci la daan ñëw su ñëwee daayira bi sikkar la woon suñ kër lan sose daayira bi sama bàjjan moo doon sëy ñu jox leen njàkku càmmiñ 3000 francs ñu sos ko ab daayira foofu waaw léegi booba ay yendoo am Touba ay yendu booba buñ la masaa jox ay jàkku càmmiñ ak yooyu ab yendu lañ koy def laal baas luyee 1500 dajale gaa yi alors léegi nag ñu ñu def ko ab daayira sëñ Abdou Khadir boobu mi ngi fi ak sëñ Abdou Laat ñu dem jébbal ko sëñ Abdou Khadir xaarim daan jógee këram di dox di ñëw di sikkar ci daayira bu paree ñu di ko dox di ko di ko gunge mais xam nga bëgg rek ni ma ko gisee xam nga nit da ngay gis rek fan ko ma gis ko bëgg ko daal ma topp ko nag ànd na ma moom lu mat ñetti at ñeenti at xaw ma waaw moom nag laa àndal ndeysaan ba ba niñ ma xamee nii. moom laa àndal. Euh, ndax euh, sëñ Ousmane tamit ginnaaw bi nga àndee Serigne Khadim Gueye tamit mën nañoo xam ci ñaata at nga xam se ne topp nga ko ci yoo xam se xam nga su fekkee dañoo tàmbalee ci dat bi ma ko xam man ànd ak moom mat na 31 ans wala 32 ans mat na ko hmm. waaw mais ànd yi ma daan ànd ak moom xam nga yooyu jamono Khadim kuréelam daanaka dafa tënku ci wilaya ba ëpp a hmm. général bu ñu amee ay jàng boo xawee féete xale wala wala bokkoo ci kuréel bi doo teg ak yooyu booba kuréel yi daa am da nga daan teg. da nga daan teg kenn ku ne joxe nangam ak nangam léeg-léeg ñu xotti ay ay mbubb nuróole ko c'est de suite non man daawuma teg parce que booba euh, ñii ñoo nekkoon ci kuréelu Xaadim Gueye ñoo nekkoon kuréel ba euh, Xaali Mbay Mor Fall Mara euh, ak ku ñuy wax Mbacke Saadi mooy soox moo jiite kii Xaadim Gueye ñuy wax Tafa Diouf ñooñu ñoo nekkoon ci kuréel bi ak Serigne Diop. Euh, alors boobu man da <laughs> buñ masaan di répété sax daawul ma woo parce que comme xamuñu ma man maa bëgg rek ñëw mais man kenn kenn considéré gu ma awukat kon du ma mën a teg moo waraloon daa xaarim daana war a jàngi bu ma ñëwee bëgg a dem ñu wàccee ma ne ma doo dem ma bu ma paree ma ma ma comme man maa ngi liggéey si métallique ma dem def bricolage jaay ay fourneek ay saafook nangam bu dee njaareem lay jàng wala yooyu ma ma ma def bricolage ba am paas paas dem fekk leen fa ma àggee bu ñu mënee dal bi doo ci dugg ma dem toog ci baas ba xaar leen buñ ba bañ génn ci baas bi ma ñëw toog daal di déglu li may déglu mu neex ma ma génn après bu ma amee xaalis ma jënd kaset yi su ma ko amut ma xam technicien bi su après su ma parce que booba écho moo amoon écho yi ñuy rajo écho yi bu bu ñu bu ñu enregistré kaset yi il faut foofa ngay xamee ki ko mais su jàllee doo doo ko xam ba bokkul ak léegi nga xam ne son yi léegi partout dans le monde mi nga am léegi nag su ma laajee après ba dem ma jënd kase yi. mais nag bi ñu demee ba 1996 damaa nuru woon Xaadim géey ba munoo maa xàmmee moom fi mu ne am naa sama son yoo xam ne sama ko tegoon fii léegi munoo maa xàmmee Xaadim Gueye boobu moo moo Xaadim Gueye rek laay roy li muy def lépp laay def euh, pour pour pour ma nettali la anecdote bu xoromu ma billaahil asim mas na maa dem marché Ocass pour bëgg a yettalu saakar yàlla ci sama kii bi pour nu pour nuru Xaadim Gueye waaw waaw <laughs> ma àgg waa ji na ma sëñ bi. am na ku ko fi defoon de waaye bi mu ko defee jiwu ko de ay bañam yëpp mujj dañ de te nga bàyyi noonu rek ma ne ko noo garaawul sax parce que am naa saakar yàlla côté quoi su ma deeree danañ gis saakar yàlla bi pour bëgg a nuru xaadim géey rek mais nag bii ma lay wax nag lu xorom lu yéeme da ci am yàlla rek moo man 96 lañ ñu boole programme fii Daaru Xuddoos sàq mi ma ñëw jàng première heure bi tàmbalee jàng awukat yi nekk ci biir kër xaadim géey ñoom sañ bàcc ak mbayloog gaa yi daane ne xaadim nañ leen yee xaadim waaye gaa yi kat sëñ bi eh, daa mel ne xaadim waaw dañ ne gaa yi dañ leen daw dem ci jàngee kaaw xaadim tàmbali na de boo fekk man la ñu ne ah du xaadim de ñu ne ñu ne ah xaadim la de ñu ne xaadim lam néegam vs baa ngi tàkk kon demagut ñu daal di ñëw wax ko yaayam yaayu xaadim yaa ndey jóg ne ko ne ko xaadim dañoo defal ne moom daa yeewu dem eh, tàmbali est-ce que moom mun leen déedéet xaadim mi ngi nelaw de yeewoogut mais nag ñu ne ko kon yee kon ñee kaset lañ teg fekk man la waaw bi ñu yee xaadim ba mu jàpp ba ñu dox di dem ci jànge xaadim ne la ah nañ leen dëgg tànkee waaxuwaay ñee ko daa mel la kasar lañ teg bi mu ñëwee fekk may jàng ci mbaaxam ak généré euh, générité mu daal di may daal di may jàpp mboq ma noonu ci biir baas bi ne ma yow ndek yow foo ne yow ma ne ko non man maa ngi tali bés léegi damay jàng fa ma mu ne ma yow yow yow lu tax ñëw doo ñëw ci jàng bi bul dem taxawal ma ne ko déedéet damaa war a xëy liggéey te da ki ma nekkal dafa naqar déet quoi damay bañ mu ne ma non non toogal xaar ma ba xëy dama laa soxla pare bi ñu xëyee mu woo ma nag sangaru conférence de presse ci këram ñëpp teew jàngkat yëpp mu ne leen Ousmane mii damaa bëgg muy ñëw ci ci euh, équipe bi parce que gis naa ci moom loo xam ne ku ko jàppale fu fu ni dégg jànk danañ ko dégg fekk booba bi ma jàngee ba pare damaa resté toog ndekete li ma doon awu moo daq li may jàng waaw may aw foofu mu am mu am mu garaaw lool nit ñi apprécier ñëpp naan aw kotu xaarim géew bees bi waa kii kan la waa ji njool ji waa ji njool ji nekkoon fi waaye kii kan la après mu ne ma nag dama laa soxla daal may wax loolu ci noonu nag ci laa tàmbale nag ah may dem nag di ci biir euh, kii bi di aw nag après première cassette yeeg yëpp ñuy dem ci cassette yeeg yooyu Euh, après nag ma siiw ci nag man ci ci aw ci laa njëkk amee tur ci la ma waa bi ma xaadim Gueye ci lañ <laughs> ci la ci la ma ñëpp xamee. ba tey tamit ginnaaw bi nga àndee ak Serigne Khadim Gueye lu toll noonu mën nañoo xam tamit sëñ Ousmane ci ban ane ci la beroo. waaw ah, xam nga euh, jàng nag Baye Moustapha ci woon Gumba moo waxoon ne jàngkat kenn du ko ber mooy ber boppam nooy bere sa bopp mooy dangay ngay aw benn jàngkat choisir ko di ànd ak moom ba mu yàgg bu amee. bu ne laa nan dem barab sàngam damay jàng dakaar suba nga ne ko ah man de suba Thiès laa koy jàng mu ne la ah d'accord mais soo jógee Thiès kon nag ma fekk euh, Louga Louga laay jàng nga ne ko ah jour boobu de man maa ngi koy jàng baambay mu ne ah d'accord mais kon soo jógee Bambey après nan tasee Mbàkke ko parce que fa laay jàng nga ne ko non man jour boobu maa ngi jàng Diourbel suba waaw su su boobaa beru nga waa parce que comme yaa ngi mais na ñun. li am léegi ci awukat yi léegi sax xëy na danañ ci ñëw ñun amutoon ci ñun ñun ñun ànd nañoo xaalim géey ba nekk ay jàngkat pele di tournée ji comme moom bu ñu masaa ànd ak moom programme muy tourné trois mois wala 4 mois léeg-léeg ñu tourné ñu tourné 10 jours wala 20 jours dañuy bàyyi aw bi dem tournée ji ba tournée bi jeex ñu jëlaat suñuy saak dabi ko waaw ànd ak moom ci tournée bi ba tournée bi jeex parce que booba ku ci ne li nga yor ci njàng mi mënul manqué waaw boo manqué rek mu feeñ fi may génn man. sama place kenn amu ko place su Xaadim Kebe kenn amu ko place su bàcc noonu te ñun ñoo nekkoon trois leaders yu mag yi ñoo nekkoon ci ah, euh, côté droite am ma waral en général sax des fois daana dem ba mu jàgg kuréel bi xaw a xocc mu woo ñun téléphone ne évacuer leen ñaar wala ñett ñoo xam ne danañ danañ ñëw fekk si ma pour compléter euh, kuréel beeg yooyu xam nañu wàññi suñu aw kat trois wala quatre yabal la nga paas dem ñun ñu continuer ne tournée moom yéen geen kon dem ànd jeeg moom. waaw noonu la noonu la daan defaa yéen koy dégg sëriñ Ousmane Diouf ci tontu yi xam si ne am na solo ba tey sëñ Ousmane tamit bëgg nañoo dikkaat tamit ci ban année nga daal di commencé yëg sa bopp ne xam ne yow yaa ngi bokk ci jànkat yu mag yi waaw man euh, ma wax la benn affaire gis nga man bi am juróom-ñaari at jàpp juróom-ñett juróom-ñeent laa tàmbale woon di di tas ab tànt moom maa la xamal lii maa moom masaa ñëw ci jàng nii doon xale nii moom masaa jàng ba pare ay ndiiraan lañ may def dañ may def ndiiraan waaw dañ may topp waaw di tàccu wéy wéy ndeysaan maa ngi fàttaliku <laughs> benn bis ma jàng booba booba booba gaaras bii ab àll la àll bu ne bay la rek benn daayira am foofu ñu ñu taal ay làmpi gaas ma dem fa jàng fa jàng yoo xam ne nii fekk sama yaay dafa ma doon tere ndax coow loolu ni mu bare woon sama yaay ne ma bul génn fii mukk di dem ay xale bii doom dimbali ma ne ko waa yaay bàyyi rek ah. ma demee ma jàng fa ñu jox ma fa xaalis bari ma takk ko ci laxasaay gi ma amoon nii ma takk ci benn côté bi xaalis bi nii ñu toppee ma suñ kor nag way way way way way way noonu coow li ma ñëw bay dugg ci kër gi sama yaay ni laa ilaha illallah xale bi doom foo jóge ma ne ko yaay ay jàng laa demoon fii xool xaalis bi ma jox ni mu bare euh, benn ndeysaan ku ñuy wax sëriñ Seck ak njanjaay mii tey da ko meer mun ne ko am mu ne ko bàyyi ko mu jànge kii lii yàllaa ko def ci yar ci dereetam gis nga fi mu doon jànge mënu ko mënu ko paayaag meer yaag ñëpp doon yuuxoo di jooy ña nga fa di ña ngay fa badaañoo ci suuf mu ne man yëguma kañ la dem sax ma ne ko ah man dama bàyyi ba nga nelaw rek ma tekki ndànk bunt bi rek daal di daal di des bunt bi rek dem ñu ne ko meer kii du ko wàññi dara bàyyi ko waay waaw moo tax man moom man naka jekk man jànkat laa def sama bopp bu ma masaana nekk kër ga di wayantu noonu ci garab gi nii rek xaalis yi maire yi dëkkandoo yi dañuy génn di yër di ma indil xaalis bi ma toog. booba ndax booba sa yaay da doon xaw la um, ragal ci njàng mi noonu wala doon xale gi tamit ak mbooloo mi la topp moo tax tamit boobu ma doon wax loolu wala. xam nga comme moom fekke na ci njàng mu njëkk ma daa wax naa la ci njëlbeen ne la moom daf daan tàmbalil sama papa programme di jàng première heure bi conséquences yi daan am ci jàng da koo xam. waaw parce que daana fekkee daana dugg ci fekkee ci ay jàng nit dugg ci jàng war a jàng ñu liggéey ko ñu ko maanaam fas ko baatam ñu tëj ko dootu mën a wax waaw fekke na loolu fekk na jàngkat bu ñëw ci dalam dara jotu ko mu reer ba pare nelaw naa def yi mu war a def ba jàng génn jàng des ci mën a mën a mënatul wax waa am na waa amoon na à l'époque kon nag kon yooyu moom fekke na xam na yooyu kon mooy waral na euh, euh, en général euh, ku xam conséquences yooyu doo bëgg sa doom nekk ci waaw mais ñun nag yooyu moom yàlla <laughs> dem am na ñu ci dund mais yàlla dimbali luñ ci daal. sëñ Ousmane tamit fi ma bëgg a xamee bokk na ci jànkat yi nga xam si ne dañuy daal di yëngal baas comme ça ni nga ko waxee léegi topp na la waaye tamit ñu gis ne am njàngam tamit dafay daal di ambiance lool lan moo waral loolu ci sëñ Ousmane. métier moom bu fekkee da ngay def tailleur tailleur ci laa lay jox exemple dangay man sabadoor man xaftaan man tay baas man marinière man robb waaw mais man gëw ma ne ñu ne diw couture euh, euh, day ñaw ab téer la ñu ne ñu ne ñoom moom daal jiin dong la mën a ñaw gëw ma loolu comme yow yaa opté ba nekk <coughs> métier téer fexee la man yooyu parce que des fois nga ubbi sa place wis sa ndox ba toog di xaar kuy ñëw lu jiin borom marinière ñëw man laa fay luñ la fay ci ñetti jiin yi comprendre nga. su boobaa kon nag yow boo ko mënul rek da ngay weere te loolu yàgg naa ko wax toujours man ak sëñ Xaarim Gueye yàgg nañ ci waxtaan ci bari parce que dañu essentialité ji bari mais jamono ji ji nii nii lay loolu di doog a jot man nag bi ma koy man yàgg na booba ay jamono mais léegi lay doo ko sax jot parce que ki nga xam ne jàng ay facette la fa am koo xam ne soo xasee toog di jàng li sëñ bi bind loolu lay déglu parce que moom jàng na grammaire arabe ba li ngay wax moom xam na ko ci arabe ban na koy firi kooku moom convaincre nga ko mais imaginel ki nga xam ne léegi jàngul arab jàngul naxaw jàngul feq jàngul dara xamul ci xasida yi dara kooku bu fekkee maanaam ñëw nga yow di ko jàngal xasaayit du ko xam du ko dégg day daan nii rek di xool la la ci mën a dimbali mooy nga ko accompagner kook air boo xam ne air ba yëramtalu na nangam mu jooy parce que air baa ko jooyloo mais xamul li ngay keneen ki ci des jàng na xasaayit yi mais buggul ambiance bu bari moom li mu bëgg mooy nga koy jàng mu di ko mu di ko teewlu rek di ko déglu nii kooka am na am na keneen koo xam ne nag yooyu fekk ko ca waaye moom li muy pour li muy xamee ne jàng yi neex na mooy jàng mi na nit ñi fett su jóg sar xolle yu waxoo nangam nangam jël ya am alors mu ne neex na euh, bi ci desit mooy ci jamono ji ñu toll musique ñun bi nee naa la jàng kat bu ndaw bu ñuy xam pour mu ñëw bu njëkkoon li amoon ci jàng mooy ku am ay 70 ans 60 ans lañ xamoon ci jàngkat ñooñu mooy ñi daan sol euh, kii xaftaani targaal yooyu ñëw toog di jàng suñ paree ñu jox leen kallub dugub ak ak ak xaaju mburu ñu dem loolu moo amoon à léegi nag bu njëkk booba buñ masaan di ay jàngam dana yii booy attention fee ab daj la de ay sarax la ay jàng de ab daj la mais léegi xale yi dañoo dañoo dañuy dañuy dañoo xam njàng mi léegi di ci déglu dégg nag teg ci kon li li nga war a mën a indi pour mu mën a xeex seen diggante digganteeg musique ba musique du am comme tere nañ ko Touba da war a indi loo xam ne day méngoog moom ci musique ba xumb te dagan loolu laa la bëgg a wax rek mu jeex. dama defee ne kon loolu sëñ Ousmane est-ce ma laaj ba xam looloo la neex loolu moo neex euh, comme tey ji soppe yi ñi nga xam se ne ñoom la Ousmane Diouf euh, neex euh, sopp daal loolu moo leen neex ci moom wala ndax dañuy gis tamit comme ça ni ma waxee léegi dañ naa Ousmane Diouf fu muy jàng bu nekk dafay yëngu maanaam sax bu nekk di nga yëngatu est-ce ma ñax ma ñax yooyu muy jàng ci beneen fànn nga xam se ne bëgg koog jàngkat yi moo ko neex wala waaw ah, man nag danaa la wax fii ne la xam ne site moom ñëpp koy teewlu parce que man biig rek maa ngi seetaan émission yu bari kon mi ngi dem partout dans la monde mais li ma la bëgg a wax mooy man ñëpp may bëgg man macha allah yàlla na yàlla xeb doole tabaarakallaahu ahsanal xaalixiin waaye ñëpp may bëgg mën naa laa wax ne la ñi kilifa yi nekk ci ci dëkk bi ci dëkk bii ñu ne maanaam te am fi baat koo ca dem boo ko tuddee sama tur xam na ma am na ci ñoo xam ne dañuy tëdd ba suuf sedd ñu jël sama son teg ko ndànk di ko déglu. parce que li ko waral mooy li ma la wax léegi ku ci nekk damaa seet la la arrangé ma jox la ko fi mu ne boo ma fekkoon pa baas boo xam ne ay paa kese kese kese kese fa naan kii de Ousmane maanaam bu ma bu ma leen joxee li ma leen di jox ba pare ku ci ne da ngay simboo say rango ñibbi. Euh, waaye nag euh, nit laa koo xam ne itam dama dama dama maîtriser macha allah li may def waa dama ko nekkul lu ma fortaatu dama ko man lu ma xam la. waaye fi mu ne saa bu ma duggee ci baas ba toog su ma tàmbalee jàng xam naa ban impact la war a def ci ci ci ci baas bi ak ñu koy déglu xam naa ko xam nga léegi nag loolu dafa laaj jàng loolu moo tax maa ngi ci lancé wala appel ñi nga xam ne ay xale lañ te dugg ci njàng mi ñu xam ne ndar xëyru xëy sotti gis nga seen lii ngeen di def nii mu ngeen demee ba mel ne TFM mbaa ngeen mbaa ngeen mel ne yeneen yeneen yi bëgg uh, ubbi tele boo xam ne nii day dem ci partout uh, ci ni ma ko mën a waxee mu dugg ci ñooy TFM yooyu ku leen fekk foofa dina xam ne fii ngeen jaar da ngeen a mbappat yéen ba pare doo ko àgg foofu alors léegi nag loolu nag moo waral daal li sëñ Bay Jaxate waxoon ñetti baat yi rek laa ci tënk comme waxtu waa ngi bëgg a jege daf ne kuy def lu ñëpp di def doo man lu yam fanu yam ku bëgg a raw mbooloo mi dangay def lu ñëpp naan lii jafe na moo tax man fa laa teg sama bët moo tax toujours may créer loo xam ne ñi ma bokkal métier mi xam naa ne ñoom lañ njëkk a jaaxal sax kañ ñuy déglu sëñ Ousmane Diouf dégg ngeen ko ni mu daal di leerale kon xam naa looloo tax mu daal di wuteeg ci jànkat yu bëri ci fànn googe waaye tamit euh, gis nañ tamit mbas mi nga xam se ne sëñ Ousmane moo nekk ci réew mi naka nga daal di dundee Covid 19 bi comme ñi ko ni <laughs> ko ñëpp dundee rek parce que li tubaab di wax cas force majeure la maanaam ci ñëpp ci ñiy liggéey ñëpp cas force majeure la ci ñoom mooy loo xam ne daa jékki-jékki dal ci sa kaw bett la te xamoo lu mu doon mooy <laughs> am mais li ci am solo tam solo mooy nan jël digle yiñ ci digle parce que comme suñu xam-xam àggu ca yàlla may nañu ñoo xam ne seen xam-xam àgg na ca ah ñu ngi sensibiliser mbooloo mi di leen dimbali di leen wax ay yoo xam ne buñ ca jaaree nañ ci mucc nañ jéem a fexe mooy takk protection yi muy euh, masque yi di raxasoo ko eau de ak omo di laal euh, alcool gel te toog suñu kër comme nun def fi ne man émission bi sax bi nga ma ko waxee yow ak dégg ma la wax nee naa la ba tay ñëw leen ci kër gi fekk si leen ma ci kër gi parce que loolu lépp bëgg a toog sama kër rek comme comme comme nee nañ sama kër rek nee na comme lii lépp ci liggéey bi la parce que yéen mënu leen a dem bàyyi ñun mënuñu leen <laughs> mënuñoo dem bàyyi leen fu ñu nekk na ngeen ñu fa fekk fu ngeen nekk ñu fekk leen fa rek mais daal euh, lu doy waar la loo xam ne wax dëgg yàlla laal na ñëpp nag parce que ñun moom suñu liggéey yëpp ci dajale mbooloo la nekk kon suñ xëyee xëy teruñu ko ñun avance yi ñu ma joxoon nag mooy loolu lool jox nañu ay avance yoo xam ne bari na ci ñu ma woo li ma waxee avance waaye dama ne leen waxee avance moom bu leen ko wax ndaga ni bàyyi leen ba yi jàll rek daan bëgg tamit nga daan ñu yëkkatiwaatal ci xasida yi ba pare laataa ñuy tëj jotaay bi comme que waxtu bi daal jege si taraktuma kana bil bay mutaqiyan ma inda man لحاجة لنا فتاه وأبويا رساخ يا مليكي لفتا وأولياء ور سخني بكل لنا دايخي يصل أجلا بالبثر ما مداد حتى أخيم لدي لله أركانا يسر الورى والتوتيك لسم مسكان لك سماء والارى بالأوال بلا مسارك يا روت منشر القربان أجيب وسل بتاس لمن على سنادي محمد والتاب لفعل nekkoon Serigne Ousmane Diouf ci njàngum xasida mu am solo moomee Serigne usmaan bëgg nañoo xam tamit euh, bi nga dundee nag lan moo la gën a naqari sa bii bi nga dalee dund ci àdduna ak léegi. waaw bi ma dalee jàng xasaayit ba léegi wala bi ma juddoo ba léegi. bi ah, ma jud bi ma juddoo léegi. waaw maanaam nag moom loolu moom bu ma la ko mënee wax moom. mooy bis bi ma tàggee sëñ Mbàkke Soxna moom bis boobu moom moom loolu duma ko fàtte ci sama àdduna loolu waaw <laughs> du ko ma jël sori sax. waaw loolu daal moom moom moom mu gën a métti waaw. am lu la euh, naqari tamit am nga lan moo la neex lan moo neex tamit bi nga dalee dund si sa àddina ba léegi tamit ci loo xam si ne maanaa euh, danga nga koo dund si sa àddina wala loo xam si ne maanaam da nga koo toogee. Ah, li ma gën a neex ci sama àdduna moom nga xam ne dootuma ko fàtte ba ilaa ma diine mooy bi ma jàngee xasaayit yi ba satub sëñ Fallu jël ab taawam tudde ma ko muy turandoo Mbàkke Mbàkke maa ko njëkk am ci jànkati xasaayit yi ñëpp laa la wax macha waaw loolu moom ma gën a neex ci sama àdduna parce que euh, moment bi ma ko bi ma koy tuddee damaa bari woon polémique dafa amoon ñoo xam ne xamuñu li may def am ci ñoo xam dañ ma noonu bëggoon a yàq sama carrière fu ñu génn di wax Ousmane Diouf day fo day fo day nangam wax yooyu bari lool euh, yàlla dimbali ma ci année boobu rek surtout sëñ Fallou kuñ euh, sëñ Abdou Karim moom moom sëñ Fallou mu mag ma. sëñ Abdou Karim taawam bi bi bi nelaw bu yàggul te te dëkk fii ci gaar bu ndaw ab taawam moo moo tudd sëñ Fallou Mbacke moo jur taawam muy sëñ Galas mu tudde ma ko te ba ma koy tudde daa fekk muy mu fanaan samay jàng jàntu maxawaa ñu wax ko ko mu ne ma Mbacke Mbacke kenn baaxoo ko tuddal doom ku dul ku sant Mbacke wala ku sant bu sax ma ne ko waa ah, man ma waaye doom ji guddee jigéen guddee góor yëpp wax xaw ma gu ma lan la ma ne ko waa ah, man ma waaye tudde naa la ko te yaa koy tudd ma dem tudd ko tudd ko sama bopp mu jox ma ko it ne ma moo ko ay laytaayam yëpp ne ma ay yaxam sax laa la ko xam nga di dina jox danaa la ay yaxam laa laaj mu ne ma ay yaxam sax laajuma jumala ko kon kooku mooy sëñ Ousmane Mbacke mi ngi man mi actuellement mi ngi ma joxe daara muy jàng alxuraan loolu du ma ko fàtt ba ilaa yomi diini waaw waaw parce que loolu moo ma wan ma kon man sëñ Tuubaa reconnaître na li may jàng. mu mel ne loolu daal nay am solo moo tax nit ku nekk kenn ku nekk la ngay defe nañ la bàyyi ndax xamuñu ci naka nga ko daal di jëlee sëñ Ousmane gis nañ am njàngam ni muy jànge waaye bëri na ay soppe euh, ba tabay tey ji gis nañ ko macha allah bokk na ci jànkat yi mag yi ñu bëgg a xam tamit naka ngay tàggoog askan wi nga xam se a ñoo lay seetaan waaw xanaa sant leen yéen waa 24 actu gërëm leen gërëm cameraman yi ak yow mi ko doon présenté di ñaan bi suñu borom def mu wër bay génnee ay milliards ñun ñëpp ñu di ci jariñoo euh, di ñaanal seen directeur bi yàlla may bàyyi ko ak yéen jubóole leen musal leen ci seytaane ba fi ngeen bëgg a àggale seen seen seen seen seen mission ngeen àggale ko ndax euh, bari na ñoo xam ne ñu ànd rek la bañ a gis euh, day day dal ci ñun jànkat yi day dal ci sëriñ si di dal fépp mais yéen yàlla na yàlla musal leen ci te musal nit ñun ñëpp di sant soppe yëpp ak am di jàmm yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen xamal ne gëj ngeen ñoo gis ci tànt yi namm ngeen lu waaye nun noo leen raw ndax buñ sañoon nun li nu dàqal ci njàng meeg yëpp oto yee kër yee xaalis beeg yëpp baax na ak soxna yeeg yëpp waaye li ñu dàqal lépp mooy mooy ñëw di toog di jàng benn murid di jàkkaarloo ñun di ci bég loolu moom dàqal lépp ah, di siyaar baax sëñ Xaadim mii ma jaakaar lool moom sëñ Abdou Karim Makarimal Akhlaq nit ku baax di ku nu yàgg sopp lool yàgg noo bëgg lool waaw nga xam ne sëñ Xaarim gi mi ma laaj sànq ñoo fa bokk dajee moom moom ci kër gi la bokk daal waaw ndeysaan gis gi mu def ak baax gi ndeysaan ñëw xaar émission bi nangam nangam yooyu day wane ne ci ñun la bokk sant la yow d'abord ndax lii góor moo ko waroon di présenté kon jigéen su amee ambition wu toog di mën a dalal jànkati xasida yi c'est parce que ku bëgg xasaay di la ko ci dox la kon yow ci ñun nga bokk ñu ngi lay sant di ñaan yàlla daal ñëpp ñu ngi baalu ñëpp àq di ñaan ñëpp baal ñu ñaan suñu borom boole nu jéggal weeru koor gi ñu koor ko ci jàmm mu jeex ci jàmm yàlla defal ñu ci tawféex ak ndam ak sutura ak teraanga coronavirus bi yàlla jële ko fi ak mboolem balaa yi ci des yëpp na dem te buñ ko gisati mukk te bu fi yàq dara barki Serigne Touba. jërëjëf euh, Serigne Ousmane Diouf moom la ñu daal di dalaloon tey jii ci xam sa waay ngeen daal di koy déggoo noonu ni mu daal di àddoo ci question yi daal di koy tontoo ci nuñ ko bëggee ñu daal def waxtaan bu yaatu boo xam ne tey jii ñu bëri ñoo xam si ne xamuñu woon euh, Serigne Ousmane Diouf xam nañ tey jii kan mooy Serigne Ousmane Diouf ak waxtaan yu yaatu yoo xam si ne tamit jën nañ ko sëkk ci 24actu point com nii rek la fay daal di demee ci ak actu wax nañ leen ko saa su ne 24actu dafay daal di yaatal jànkata xasida yi ne woon nañ leen ci lañ bokk ci biir lañ moo tax tamit kenn ku nekk ca la nga nekk dinañ la ca fekk wala ca waxtaan ceeg yow ngeen di ci ànd ak Mame Fatou Kébé ci xam sa waay euh, di sant tamit euh, sama cameraman di leen jox tamit euh, dig daje ci beneen jotaayu xam sa waay <laughs>